tàmme nañ ko. question yi euh, ñu war a waxtaanee euh, bëri na du rek politique. ci réew mi yëpp la euh, problème yi Ousmane Sonko yi lijjanteeguñu ko. te on est à huit mois de la présidentielle. te yi ni loolu yëpp ndax mën nañ koo lijjanti ci diggante bi après ñu dem en deux mille vingt quatre élection présidentielle jàmm am bal du tàkk ñëpp bokk. maa ngi laa remercier si sa question boobu parce que daa ma permettre daa permettre nun nu wax nii nu xelaate mhm. waxuñu ne nii nu xelaat baax na waaye proposition la proposition ñun dañu xelaat ne ay élection si dëkk ak dal ak stabilité la war a indi daa am hmm. résultat ba mu war a def sib dëkk kenn deful élection pour ba ginnaaw subaa nu xuloo in la reyante hmm. feex juróom-ñaari weer dëkk bii fi mu toll feex juróom-ñaari weer ba fekkente ne dañu ñaan président Macky Sall ne ba si bokk mu nungul nu ko ma ni kenn mënu la ñaan président Macky Sall itam nekk sànnil nguur gi soyons responsables soyons honnêtes moom ndax am fa mu bokk ñoom dañu pare pour téye nguur gi moom ba mayee ne mën na maa bañ a bokk it mën na may ñoom moom ax ñi mu àndal ndax itam kilifa du la may lépp nga jël lépp kenn mënu tas ab ab àndaam tas ab àndaam da la indi coow si dëkk bi. Mm-hmm. nu may ña ña waaj une préparé wu. il seet beneen ab candidat yooyu yëpp kenn mënu kaa suttal si juróom-ñaari weer moo taxoon nun nu jàppoon ne ba fekkoonte ne woon ne acteur politique yi waxtaan naña in àndal élection yi am at mën naa am mu indi jàmm si dëkk bi. reporter les élections. am at. un ba fekkee mënula nekk itam. in toog in waxtaan la mën a nekk ñaan njekk président Macky Sall mu bañ a bokk. si élection yi la ñëw ndax ba ko defee ab sagam la wayam la boole encore dafay bàyyi laa xamante ne kenn duutu ko mën a.